liggéey bi mom mu laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf eelaaw kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf bu mu laal suuf bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf bu mu laal suuf bu mu laal suuf nañ ko yëkkati bu mu laal suuf loolu nag bis bi ci la jëm jëmul fenn bis bi ci la jëm kon nag jërë jëf jërë